Bienvenue sur Salam Vision. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. ju ànd ak vision fu sori waaw mooy Salam Vision yéen xamante yéen koy seetaan dama leen di diggal ngeen teel dem gaaw abonné ci Salam Vision mbaa yëg nga leen ñun ak yéen dañuy ànd dem ci waawoor. waaw bu laajte xam nga ko gàmmu gàmmu. ñu fas yéene ànd dem Tiwaawoon gàmm jour si gàmm lan demee gàmm ñu ànd ak yéen lépp loo xam ne day tukki Tiwaawoon lépp fépp foo xam ne ñi ngi fay gàmm guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waa Salam Vision fas yéene ànd ak sama équipe dem teewal leen fa ñun waa Salam Vision fépp fu ngeen bëgg a dem te seen tànk jotewu fa ñun waa Salam Vision dinañ ànd ak yéen duggal leen biir Tiwaawoon dugal leen li wër Tiwaawoon fa séene leen a wan lan moo waral dëgg-dëgg dëgg ñuy gàmmu waaye lan moo waral dëgg-dëgg dëgg dëgg màggal guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow lu ko bëgg a xam dama lay wax en suivant tegal sa baaram foofu nga daw gaaw aboon ci Salam Vision mbokk yi Salam Vision daal coono askan bi rek moo ko tax a jóg Salam Vision jàmm ju ànd ak xiiwal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salli